al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak li téyal lislam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu al ibadatu wal xidma maa ngi nuyu ñi may ci biir panel bi yëpp rek tàmbale seen xarit mi jëwrin ji sëñ xabaan ñi sëñ yóbbu ñu ngi leen di nuyu baax a baax di mboolem nag suñu orateur yi fi jaar yëpp di borom xam-xam di wax ci analyse yu am solo yoo xam ni ñëpp war nañ koy déglu waaye malheureusement dafa mel ni ñu baree bari duñ ko déglu banaat noppi itam duñ ko càmbar ba xam ni mel mm, gi sañ xabaan di wax buur amatu fi eh, ay njiit yu ñuy jiital lool tubaab yi jàngale nañ ko bu yàgg ndax ñoom lëj lëj yi yëpp dañ cee jaar moo monarchie yi amal ci àdduna si yu bari ñu démantelé ko ba nga xam ne daanaka amatul su ko defee nag ñun suñu problème mooy ñun nax yi ñuy nax mooy boo fekkee da ngay laaj réew mi da ngay wax ne damay def demande pour bëgg place liggéey euh, borom société yi nga dikk ni service yi liggéey lu da bëgg a liggéey ñun la yow sa CV nga wax li nga mën def mooy sa programme bi nga xam ne bu la ko joxee da nga ko liggéey normal ñu xool sa programme waaye loolu borom xam-xam ko war a càmbar waaye ku ne rek dañ lay neexal ni la àndal ak man àndal ak man muy par parloo pëcca xoolay doon te loolu mënta mënta représenté dara su ko defee borom xam-xam yi nga xam ñoo war a càmbar ki nga xam ne mooy candidat bi ñëw ni dafa bëgg ñu jox ko liggéey bi mu yor réew bi jiite ko bu nopp bu paree moom dina wut personnel am embauché leen ñu ànd liggéey loola bu koy def ña koy càmbar ba tax mu programme boobee ñu mën koo xool ba teg ko bu bu ëllëgee moom su toogee sax programme boobu bu wàccee programme bi mu waxoon ñu mën koo daal tegaat ci yoon fi saa si duñ xaar mandat yegg loola dafa waroon na bokk ci li nga xam ne dañ koy def waaye nun duñu doxee noonu ñun dañuy tubaab yi ñoom dañuy déglu kiy joxe programme ba kii ak kii bu gën programme buñ paree nag di ko siiwar ñun nag du ñuy siiwar ba noppi ñun dañuy li ñuy def maanaam jënd la ñuy def daanaka maanaam sanal jënd la corruption bi ñuy wax nii naan dañuy corruption corruption mu ngi tàmbalee ci di campagne nit ki di yëkkati xaalis di ko jox pour mu ànd ak yow. yow bu bu la joxee xaalis wala mu neexal la wala mu may la dara yow xoolatoo programme moom xoolatoo li muy doxal waaye li mu lay jox nga def sa poos ngay àndeek moom daal di koy def bu xarit fekk ma laa bëgg a nax fexe ba say carte bu jël ko su ko jëlee ba toog ca kaw nag loolu mu la joxoon ak yépp dana ko récupérer waat ci geneen yoon te loola kenn du wax boobaa ndax fexe nga ba ni yow lépp boole nañ ko jox ko kenn mu yor ko erreur bi mënta passé loolu ñuy def noonu nga xam ni loolu tubaab yi weesu dañ ko bu yàgg borom ñu am xam-xam tey analyse benn nit mënoo koo jox lépp ni ko yaay président yaa jiite waaye yaa am majorité ca ensemble ba kon loo fa dugal day jàll loolu lañ ko wax ba tey ay liste nationale ak yëpp ay naxaate képp la ndax liste nationale warul am dañoo war a dem ca gox goxaan yi comme ni ko borom xam-xam yi dafa réew yu mag yi dem ca nit ña xool leen ñu tànnal seen bopp ka nekk foofa te doy leen te gis nañ ko xam nañu ni ku xam li muy def la te mën na ko ñu ni kii ñoom tànn nañ ko seen biir ba ba ba yóbbu ko bu ko defee bu ñu watee nag léegi ñoom ñooñu ñu war a mën a nekk am foofu amul majorité parti nangam moo ko moom wala diw moo jiite président moo jiite assemblée bi kon mooy président assemblée ndax moo koy fal moo fa ab personnalité lu mu fa justice islam même chose su fekkente ni yow eh, yaa yor mboolem juge yeeg parce que aju ci magistrat yi yow da nga leen wutal ministre boo xam ne si ni seen ministre ñoom mooy dox sa digganteeg ñoom te nga ngay wax ñu yóbbu dem ak ñëw loolu itam loolu wala dañ ko càmbar boo xam ne lii du yoon wi nga xam ne yoon wu jub la ah inspecteur yi nga xam ne si ñoom dañuy contrôler ñi nga xam ne dañoo yor ay keesi nguur bi di liggéey di yor ay ay ministère wala ñu ay ay ay direction mais ñooñu bu fekkente ne ñoom dañuy dem di di di di di dépendre ci président bi nga xam ne moom bu ñu defee rapport pare moom lañ ko jox bu xool ba xam ndax rapport boobu da koy génn wala da koy def ci loolu tam nit war nañ ko xool bu a baax waaye yëpp bu amul bu ko defee nag léegi ñu dem ba ca ba ca njobaxtan la ñuy def mooy ku waxati ñu jàpp la te ndax da ngaa bëgg a yëngal réew bëgg indi ci réew bi fitna mais lii indi fitna dëgg dëgg ci am réew du loolu mooy injustice mooy yóbbu am réew ci fitna bu bu maandu amatul ni ko ñëpp xamee wax ko dëgg doxalatuñ ko wala ku doxal lu dëgg bañ xam doxal lul dëgg kenn du ko dénoncé ba nga xam ne si léegi loolu day dox ci réew bu continuer foofa fitna ji day mujj yeewu te boobaa bu yeewoo yee nelawalaat ko du yomb daal looloo tam lu ñu war a xoola war a xoola li ñuy wax lépp kilifa yi dañoo war a wax kilifa kilifa yi seen yoon daanaka nekku ci loolu parce que ñu ñoo tànnoon ne dañuy tànn ku ñu jiite mais ñun ñoo war a mat gu toll bu ñuy tànn ki ñuy tànn ñu waxanteeg moom lu leer bu ko wàccee ñu di jëfanteeg moom ni ko doo duñ la ko may parce que am na ñoo xam ne am nañu xam-xam bi yëpp te man koo wax te opposant yi opposé wu ki nga xam ne moo ne ci pouvoir bi mais li koy wax dañ ko war a déglu parce que ñoom loolu ñu wax dañ ko war a wax bu dee dëgg dañ cee war a topp bu dul dëgg nañ yóbbu leen ci yoon ñoom ñu wax ni te du dëgg loolu yëpp da cee kon wax lu la neex wax sa xalaat ak ay wax luy jaxase ay nit ak ay sosal ay nit ak pour yàq nit ki rek yooyu yëpp kon dafiy jóge kon lépp dañ koy teg ci yoon waaye ñun euh, diggante boobu moo xat ci ñun diggante ay tribunal diggante ay assemblée diggante exécutif bi muy président di ko wët foofu lan amee problème te loolu tànk lijjanti wuñu ko ba mu leer luñ ci def boo liggéey itam dara nekku fi ay procureur yi yëpp nga xam ne yow da ngay jékki rek fii si nit ki nañ ko jàpp indi indi nga ne yóbbul mandat mandat de dépôt joxal si si ba wax mandat de dépôt ci continuer di waxtaan loolu moo wata moo moo moo moo nekk loo xam ne jaarul si yoon réew moo xam ne si yow nangami téeméeri parti kenn ku ne yor sa ñaar ñi te ñett ñi di la layam yi di wax ni euh, man nañ buñ ma falee wala maay ki boo demee ba ci biir mel ni kuy jaay di santaas nit ñi boo bu ñu nee tey ji kenn ku ne yow mënoo nekk candidat nga daa di dem wut ñeneen ànd ak ñoom ngeen def ay coalition coalition yi lu tax mënu mën a nekk benn parti au lieu muy nekk ay coalition parti lay doon américains yi li dëkk bi di cinquante états ñaata million nit ñoo fa nekk ñaari parti ñooy mars ñëpp xam nañ ko républicain yi ak démocrate ñoo fa nekk indépendant bi mënu am dara léegi nag bu fekkente ne woon loolu mënoo koo doxal yow da ngaa dem di doxal euh, kenn ku ku mer rek beru daal di teg sa ci sag basang daal di wax ne man tam damay jiite damay jiite ñu naan damay jiite damay jiite te yow wóor na la yow mënoo yor sa ab direction ñu naa la ab parti nga yor di la jéem a ngay wax mais eh, yooyu yooyu dañ ko war na xool bu baax na baax mais yooyu yëpp nag moo ñu indil jafe-jafe ñaama lan lañ indi wuluñ ko parce que bu ñu façon ñàkk àndaloo du ñàkk ànd ba tey jii problème yi ñuy yow fekk na woon tey jii majorité bi ñi nga xam ne ñoo opposé wu au pouvoir ñoom ñëpp nekkoon nañ benn bopp tey am benn njiit di wax ak moom ak ànd moom kon yéen kenn xalaatu ko bala ko nit a def il faut mu xool ko bu fekkee yooyu yëpp amul kenn ku ne nga am fu la neex nga jëm wala ñu jënd la nga mel da ngaa yor sa marché di ko jaay fam ni ni sab seen i ba ni sampaat lañ boo ko nga dugal leen faneen foo xam ne mën naa ko woon te yow yaa leen ko yóbbu que pourcentage bi ñu la fa jox nga santaaf jox la daa ni la ci nun nga bokk fexe ba nga bokk nga def ci sa poche continue ak say la neex loolu loolu ci boppam la nit ñi war a xool bu baax a baax mais tant que xooluñu mun ñu fee tëral daala loo am ne si coow doo nga cee mujj waaw luñ fi tëral ci façon yi wallaahi la fi bu ñu demee ba ca fin ba coow képp ciy mucc waaw coow képp ci mucc kilifa yi ñoom ña nga fa ñu nekk ña ngay def lañu war a def di wax lañu war a wax seen am na yoo xam ne buñ leen di dugalee wala ñu kenn dañ leen a bëgg a boole ci ñëpp képp def leen morom wala léegi ñu leen di wax lu leen neex ku neex nga wax ci tekkiwul dara représenté wul dara su génn di wax loolu moo normalul waaw. fi ñu kii réew mi toll nii nga xam ne population Sénégal bu ñu xool Sénégal ak réew yu ndaw yi réew yu Afrique yi ñu gis population bi gone yoo xam ne fii nii matuñu ay diggante fukki at ak juróom jëm ñaar fukki at jëm ba fanweeri at ñoo représenté lu ëpp soixante cinq pour cent bi te ñu ci bëree bëri la nga jàng yow ma leen jilif jàng nañ lu ko ëpp muy suñuy doom ni que ne na ngay ko xam ne kii ni bu dee daa mënoon a jàng alxuraan wala mu amoon xam ci diine ay doomam romb nañ ko buy yàgg jàngal na leen ba ñu raw ko bu nag moom la ñuy sant yàlla mooy comme da leen jàngal diine ñu koy jëfe lool la loolu lañ ko soxlaa woon bu dee ci wàllu ngir si war wàllu nasaraan yi yëf yorum réew ak yëpp ñii fi nekk di wax seeni doom bu yàgg lañ leen génne woon ñii jàngi nañ bitim réew ñii jàngi nañ ba lépp lu ñuy xam xam nañu ko ëpp këgg seeni këggu ëpp sa këggu nga wàññiku nekk ci seen kaw yilif leen ba pare ñu xam doxalin yëpp bu fekkee doxalin ya nga xam ne moo nga war a doxe doxe woo ko ñoom dañuy boobaa dañuy jëf leen teg yow te doo ci mën dara da wax rek gone yi dañu war réew kenn yëru leen nangam nangam fekk yëruñu leen mais yaa leen jàngalan loolu bañ xam la bañ xam na nga doon doxe ba pare nga bëgg a ci seen kaw nag yilif leen loola bu fekkente ni jafe-jafe yi am yépp ci réew yooyu da ci bokk moo tax kilifa yu mag yi nga xam ñoo ne ci kaw nit ñi dañ leen a war a wormaal te bañ leen dugal ci yi ndax gone yoo xam ne si bu kilifa waxee ba pare ñu ni waaye teg lañ cay bëgg a teg kooku sa kilifa boo amee fulla ak fayda da nga koy làq foroog seen bañ ko caa boole bàyyi leen ñoom ci seen bopp ñu jëf leen ci seen biir buñ jëf leen ci seen biir dañu rek ndax léegi kenn mënatu la ndax kenn ci am ñëpp fekkante nañ tàgg fekkent nañ ci kaw waaye bu fekkente ni léegi dañoo bëgg naan kilifa yi dañoo war a wax dañoo dañ dañoo nangam nangam kenn ku ne di bilaam kilifa yi te kilifa bu ci yëkkati sa baat ay gone ndaw yoo xam ne amaguñ fanweeri at ñooy taxaw ci rajo yi ak internet bi ak fu ne di la vilipande di wax sawtu di ko wax luñ ci war a wax loolu dañ ko war a bañ kilifa yi fi nekkaan lu tax bu bu ñu masaan wax ñu déglu leen booba ñi ñi fi nekkoon bëriwuñu woon ñi daan jiite réew mi itam bëri wuñ bon dañ daan léegi notion bi nga xam ne boo bëggee jiite réew mi dangay dem fu ne nga dugg fa kër kilifa gu ne nga dem fa ne koy yaay kilifa gi yaa ma ñaanal ba boo ma ñaanalee dinaa jot ci réew mi kenn ku ne di wax bu ñu la ñaanalee nga ni koo dem si moom ni ko yaayoon mbir yi bu ko defee kan mooy sa kilifa kenn doon si kilifa ko defee boo waxee fii kii wax fee wax fii séparation boobu am ci kilifa yeeg nga xam ñoo ngànk diine ak yooyu ñoom ñoo ko wërta parce que politiciens yi nga xam ne ñoom li ñuy wax ak li ñuy def dara bokk ci kenn waru leen a déglu wala nga leen di nga leen di ñaanal wala nga leen di wax nanga bu ñëwee ne leen baax na rek fa sëñ ba nekkoon rek di jaamu yàlla ak liggéey ak yarum njabootam yow na nga ne ca say teel teel di dem di def la nga bëgg a def wax la nga bëgg wax waaw nax nit ñi nax leen a nax a nax ba nit ñi la aligon nga wax leen toog sukk fi ñoom wax leen baat yoo xam ne si ni ñëpp dañuy wax ne àkkasaar bu ëllëgee nga def lu bokkut ak loola loolu mat a seeraat la. léegi wàllu autorité force de l'ordre yi force de l'ordre yi koo fi gis xamante nañ ñëpp a xamante ñoom diggante force de l'ordre bi ak gone yi xamante nañ ñoom ñoom ñëpp ñoo bokk école yi ñu génn wala ñenn ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre yi ñu génn ca kaw lu ñuy def ñu gën leen koo xam bu ko defee nag léegi bu ñu ama jàmmaarlu yooyu day mujj duutuñu respecté kenn boo dee force loolu sax buñ jàmmaarlu yow la ñuy bëgg mooy ray kooka bu ko defee dañuy mujj nekk ay sanguinaire yoo xam ne kenn mënu ko lu moo tax ku yilif réew mi wala nga riif da ngay def très très très attention ci naka ngay seeree ba yu bëree baree bëri nga xam ne la woon ak tey bukkatul nga fexe ba sensé yooyu teg ay stratégie yoo xam ne si ñëpp danañ mën a xam lu xew nga bañ leen a làq dara lu leen ñu xam ko la nga cay doxeet mu leer naan ñu ku ca doxeet nu ci wërta doxeet nga bu baax nag population bi ñoo koy attel seen bopp